fii ci suñu réew wax dëgg yàlla am na ay kaa yu ndaw ndawaan mu ngi commencé yéeg tuuti tuuti parce que ñaari weer yi ñu génn dem nañ ba nga xam ne ay juróom cas la ñu am ay juróom benn juróom ñaar waaye fan yi ñu ngi seetlu surtout ci semaine bi ñu génn ñu ngi dem ba am ñaar fukk am nañu ci dimanche bi fukk ak juróom loolu terewul nag eh, ñuy maîtriser covid bi fii ci suñu réew xam nañ ne aussi fan yi def dañu nekk ci période tabaski bu fekkee ci garage yi ci daral yi nga xam ne dañ fay jaayi xar ci marché yi dafay bëri ay nit ba tax na dañuy ñaax askan wi ñu delluwaat di takkaat masque bu ñuy dem ci bërëb yooyu di leen ñaax aussi ñu dem ñàkku ji ñàkk bi wax nañ ne bis boo ñàkkoo euh, feebar bi du la semmal maanaam du la loofal te ñàkk bi doo ci fay dara yàlla dogal aussi ñàkk bi am na fépp ci suñu réew bépp bërëbu fajukaay boo dem ñàkk baa nga fa te doo ci fay dara lu weesu loolu nag ñu ngi wax waxi grippe bi dañoo nekk nag période grippe buñ ko méngalee wax dëgg yàlla ak mbas mi